asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa dafa am rek lu ñuy leeral loo xam ne dafa war a leer ci bopp nit ñi gis nga ñi jóg di indi ay wax sama diggante ak Pape Serigne Mbaye dara lañ ci mënul man kenn du ma wutal noonu kenn du ma wutal noonu man kenn du ma wutal noonu man may wuutal sama bopp noon wala mu uutal sama bopp soppe Pape Serigne Mbaye tudduma ko fenn tiit waxuma ko dara tiit defuma ko dara kon ñi nga xam ne dañoo bëgg a jël wax yi di ko dugal fu leen neex di yóbbu fu leen neex nañu xam ne duñ ci am ndam duñ ci am ndam man Pape Serigne mbay sama kilifa la duma ko xas duma ko wax lu ñaaw su ma ko ko waxee wax naa ko sama bopp su ma ko ko defee def naa ko sama bopp léegi nañ ma génneel fan laa tuddee turam jëme ci moom lu ñaaw nañ ko génne suñ ko génnee ñu wax ma ko wala ñu yónnee ma ko mais loolu amul nañu bàyyi yàq nañu bàyyi jaxase Pape Serigne bay bu ma ko xasee xas naa sama bopp su ma ko bañee bañ naa sama bopp man li may dox tariqa yëpp laa yemale nag tariqa yëpp laa yemale yëpp laa yemale teewul nag Seydil Hadji Malick mooy sama kilifa mooy sama kilifa te man contribuer naa ca Maodo loo xam ne contribuer wu leen ko bay leen yàq bay leen yàq nañu xam ne kër gi këru defer la mais du këru jaar fële këru jaar fële këru jaar fële loolu du kër gi Pape Serigne Mbaye sama kilifa la du ma ko waxee lu bon wax naa ko sama bopp su ma ko defee lu bon def naa ko sama bopp kon la ngeen waroon def ngeen maandu ci waxuma ko dara dara dara ku gis nag fu ma tudd turam wax ma ko Pape Serigne Mbaye suma kilifa la suma kilifa la suma kilifa la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu loolu laa doon leeral ci seen bopp mu mu leer ci seen bopp ngeen xam ko du ma nit na ko ragal de non non non non non loolu sax xalaatuma ko ci àdduna waaw waaye nag lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru def ngeen ma ko daaw jéeg def ma ko daaw def ma ko ren lu ëpp tuuru man tudduma benn yoon Pape Serigne Mbaye fu ma ko tuddee mooy xanaa jumaa ji foofu de tudd naa turam wax naa la ma war a wax jeex na waaye yéen nit lu tax ngeen mën a jël seen kàddu wër fu leen neex ngeen dem loolu lu muy jëriñ loolu yàq rek la loolu amul njëriñ amul njëriñ Pape Serigne bay mënu leen a fexe ba ma def ko noonu mënu leen a fexe ba mu doon sama noon mënu leen a fexe fexe fexe ba du ma yilif ko kilifa kilifa gu nekk ci kër gi njaboot gu fi nekk ñëpp moo leen yilif yéen ngeen di wër di wax lu ngeen di wax lu ngeen di wax kon nag ah lu ëpp day tuuru de lu ëpp day tuuru lu ëpp day tuuru wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.